jaajëfal nañu leen bu baax ci ànd bi ngeen ànd ak seen site internet bi di Buzz Sénégal Actu li gën a fës ci bopp xabaar yi nag dañu koy doo rek Abdoul Mbow mi nga xamante ne tardewul benn yoon rek def réaction am ginnaaw déclaration bi nga xamante ne rek ministre bu porte parole gouvernement bi daal dina ko yëkkati moom mi nga xamante ne rek moom moo nekkoon ganu émission bi ñu dippee grand jury foofa ci RFM ma ngay daal di rek sàkku nag ci éventuelle motion de censure bi nga xamante ne rek daal dinañu koy def ñeel déclaration politique électorale bi nga xamante ne rek jëwriñ ju yees ji di woy ci turu Ousmane Sonko moom moo ko daal di xamle ki di indi li nga xamante ne rek moom mooy contre courant nekk vision boo xamante ne rek majorité bi di peuple du Sénégal ñoom ñoo ko daal di sàkku bu fekkee ne loolu ñëw na rek am na ci ñenn nit yoo xamante ne rek dinañ daane nag lii di gouvernement bi maanaam daal dinañu ko nasaxal waaye nag dina am benn phase boo xamante ne rek dinañu ko am ci kanamu Sénégalais yi ba tey rek ma ngi daal di wax ne nag bu fekkee boobu les nekk na cas bu mag boo xamante ne rek opinion publique ci seen jëmmi bopp ñoom ñoo ko dal di sàkku mu nekk kat yu nga xamante ne rek kii di président bu groupe euh, parlementaire bii di wóo ci président groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar di Abdoul Mbow nag dal di génn nag ci tekk-tekkaram la mu dal di xam ne rek moo di ne nag mbir mu nu mel daal menace dëgg lay niru ginnaaw kat yu nga xamante ne kii di Moustapha Sarré daal di na ko yëkkati moom monsieur Mbow mu ngay daal di nañu koo def bu ñu ko defee rek day bokk ci ay panoplie maanaam daal dina am lii di cause am conséquence ci gouvernement bi mu nekk nag instrument boo xamante ne rek dafay saytu ak contrôler anam bi nga xamante ne moom la gouvernement bi fas yéen doxalee te li xamante ne moom mooy assemblée nationale bi nag daal di koy am ginnaaw nag waxtaan bi nga xamante ne rek daal dina koy sekk suñu nattangoo yi lam ca daal di xam ne rek ñeel compétence yi nga xamante ne député yi am nañ ko bu fekkee na dañ leen sargal kon mbir mu nu mel dina am nag nag ab jeexital ci déclaration politique générale bi nga xamante rek premier ministre bi di Ousmane Sonko daal dina koy def kii di Abdou Mbow nag ma ngay joxe ak exemple ñeel motion de censure bi nga xamante ne rek groupe parlementaire bi nag ñoom ñoo ko daal di am bu yeewi askan wi ci déclaration politique générale bu premier ministre boowoon a nag Amadou Ba ba tey rek la mu daal di xam de ne la bu sukkandikoo nag ci député bi lépp loo xam ne menace la ñeel yenn député Benno Bokk Yaakaar yi nga xamante ne Jokalante te ñu fal leen nag élire leen au suffrage universel direct nee na benn Benno Bokk Yaakaar ñu ngay sàkku ci gouvernement bi nag mu daal di respecter séparation pouvoir yi nga xamante ne rek def nañ ko ñeel post yi nga xamante ne moom moo nekk ci institut bu nekk rawatina nag république bi nga xamante ne rek mi ngi koy occupé ak li nga xamante ne rek moom mooy ay affaire boppam di kaddu yi kii di Abdoul Mbow ginnaaw rek bu mu nekkee ganu grand jury foofu ca RFM jërë ngeen jëf ci teewlu bi abonné bés cloche de notification yi ngir mën a am yeneen i xibaar